balaa ñu dugg ci euh, waxtaan wi ñu baal nu ñu yëgle benn bis boo xam ne nii sunu bisa euh, muy euh, le 16 bii ñu dëgmal dafa am mbokk mu tudd Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar fii ci alwasaaya dalal nañ ko fi dalalati ko fi muy boroom xam-xam bu nu ràññee xam-xamam yàlla dogal jamono yi mu nekk ci loxo yoon ci koo xam ne ku ko fa yóbbu moo fa waroon dem démb maa ngi waxtaan tey la jàll ci aaxiru zaman di wane ne dafa am ñaari Cheikh Oumar Cheikh Omar boo xam dafa am jafe-jafe ak ñàkk déggoog ñi ci tarixa yi mm-hmm. ak Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne nii ba mu ñàkk déggoog ña ca tarixa ya yoon defu ca waxu ca mm-hmm. nee na nee na tooñul kenn yoonu Sénégal porté nañ ko pelent te nekk ca tarixa ya mm-hmm. euh, def nañu marché ñaxtu nañu yoonu Sénégal ne teg ñu yóbbu pelent ñu ne 108 kon Cheikh Omar Diagne boobu noonu nga xam ne nii am na ñu nekk ci tarixa yi am ñàkk déggook ñoom du Cheikh Omar Diagne boobu la ñuy défendre du Cheikh Omar Diagne boobu tamit la ñuy wuy ji bis boo xam ne dañu ne nañ ko libéré. Mhm. bu doon Cheikh Omar Diagne boobu la. yoon woolu ko ca pelante boobu. Mhm. ne dafa am ñu mu joteel ci biir tarixa yi. Mhm. dama naan ne wuy ji. la mu wax na ci indi firnde. bu ko indiwul yoon na daal ci kawam. wax dafa jafe Sénégal engagé wu ci yenn yi tamit dafa jafe Sénégal. Cheikh Omar Diagne boobu nga xam ne cay weer ca ginnaaw ba mën na at sax léegi. pelante boobu ñu ko pelante woon. ñu nekk ci tarixa yi cent huit Cheikh Diagne moom moo toog ba jëmmi jamono am jenn waa ji tudd Jibril Waar toog ci assemblée nationale ni drapeau góor jigéen ñi dara nekk ci arc bu bàyyi ko ci asamaan lu ñu ciy sikkal sàmm jikko yi ku leen ko sàmmuloo juillet 2021 kenn waxut deux décembre ànd sàmm jikko yi yóbbu lu am assemblée nationale ñu rejeté ko ñu dalal ko 7 TV 23 24 mu toog fa ne ànd sàmm jikko yi am na terroriste ci seen biir ay terroriste am na ci ñuy def ngóor jigéen ci seen biir te waxuñ ci imaam di ko jugee na ba Mali ñëw fii Sénégal am na ñu mu giseel ci ñoom la ko neex mu toog taxe ko waa ànd sàmm jikko yi waa ànd sàmm jikko yi ne tekk ba Cheikh Omar Diagne répliqué wu ci kawam wax ko lam ko wax le vingt le vingt-huit décembre ca Walfadjri plateau bu fa amoon mu am lu muy leeral ba tudd na dégg na Jibril Waar euh, Jibril Waar di attaqué am terme bu mu utilisé duma ci jaaraat ca même émission ba lañu jël Jibril Waar ca tele ba en direct moom it mu am droit wu réponse droit wu tontu mu tontu ba muy tontu attaqué wul direct njël benn nga Jibril Waar mais waa ànd saamu jikko yëpp la toog ne yéen dafa mel ni da ngay problème bi ngeen nekkee xale dafa am ñu leen doon tëddee dafa mel na ngeen amoon problème ak ay góor yi leen doon tëddee moo tax ngeen jug fii nii fu ngeen tollu góor jigéen góor jigéen tax ànd sàmm jikkoy lu ko neex ba muy jeexal mu ne Cheikh Omar jaañ danaa fu ma dajeeg naa la def nu ñuy def jigéen en tant que député bu assemblée nationale loolu la jeexalee daal di coupé émission ba jeex kenn waxaatu ca ànd sàmm jikko yi ñibbi seen kër mu ñibbi këram ñun ñëpp ñu ne coow la jeex na Cheikh Omar jaañ wax na tontu na ko coow la jeex na décembre janvier février ba mois de mars mu annoncé plainte jëmee ko ci Cheikh Omar Diagne kañ Cheikh Omar Diagne daa toog ba mu neex ko mu ne dafa bëgg doon moom itamit député dem assemblée nationale ndax loi bi ñu yóbbu ñu bolake ko jàpp na ne ca la koy faj bokk na ca mooy ñu dem assemblée nationale am fay député na ñëpp ca la plainte jib ñu ko wooluwaat ko baagante ko baagante loowaat ko ca diggante ba sew Omar Diagne ngir mettre à l'aise kuréel bi ndax attaques yenn yi dañ ko doon booleeg Cheikh Omar Diagne muy jotee ki kuréel ñu bëgg ko booleek Cheikh Omar Diagne mi nekk ci biir ànd saamu jikko yi mu démissionné te diggante boobu lañ ko wooluwaat téye ko garde à ba tey mi ngi mandat dépôt pelante bi kan Jibril Waar mu ne waxoon ne ànd sàmm jikko yi am na góor jigéen seen biir am na ñu tëddee góor ànd sàmm jikko yi am na ci terroriste imam di ko jóge na Mali ñëw giseek ak ñoom ànd sàmm jikko yi xanaa bi ñu nekk xale dafa am ñu leen doon tëddee moo tax fu ñu toll naan góor jigéen góor jigéen Jibril Waar mooma wax kàddu yu bon yooya nga xam ne tey moom lañ waroon a pelante mu dugg ci kaso bi nee na ñooy moo plainte Cheikh Omar jaañ ñu jël ko tey tëj ko ci kaso bi lii la benn collectif bu tudd Colicot jug taxaw lëkkaloog ànd sàmm jikko yeeg yeneen i kuréel ne dañoo bëgg ñu libérer Cheikh Omar Diagne ci kaa bii ndax kii ko fa yóbbu moom lañ fa waroon a yóbbu moom lañ waroon porte plainte mu dugg ci kaso bi ndax waxul dëgg ànd sàmm jikko yi amul benn terroriste bu dee imaam ndaw lay wax mi ngi bokk ci ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo ne woon terroriste la xëy ne doonatu ko kan mooy terroriste kon ci ànd sàmm jikko yi ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne nii wax na ko loolu moo tax ma ne ñaari Cheikh Omar Diagne léegi nag bu jógee Cheikh Omar Diagne bii nga xam ne dafa amoon jafe-jafe ñu bokk ci tarixa yi dañuy jël ñaari boole ko te du benn jaxase pédale yi nañ ko éviter nañ ko moytandiku mhm. te bi ñuy jóg di dal ci koom lu mel noonu sóoraale nañ ko mooy nañu profité ndax bu ñu ko jàppee dana am ñeneen ñu jug ne bu ko kenn soutenir ndax kat dafa joteek ñun man bi ñu ko jàppee dama ne man bu ma porté woon plainte ci jamono yooyu noonu lee waxuñ ci ba tey keneen koo xam ne mi ngi bokk ci ñoom porté plainte ñu jàpp ko man damay jooy damay am lu ma métti am lu ma naqari ndax damay xam ne aw ma benn baat ci réew mm-hmm. Sénégal lu neex waaye wax ko ci kilifa diine wax ko ci tariixa te dara du la ci fekk doo porter plainte du mujj fenn loolu ñuy ciblé loolu la ñu waroon a jooytu ba noppi mm-hmm. lan moo tax Cheikh Omar Diagne am na jafe-jafe ñenn ñu bokk ci tarixa yi ba léegi yoonu réew mi waxu ci ba tey mu am jafe-jafe kenn kuy défendre LGBT tey ku leen di défendre laa wax moo ko wax ñëpp di ko dégg bu ñu sonal attaqué ñuy xeex ànd sa ñuy xeex euh, Euh, ngóor jigéen yi nu mu ko neexee kooku la amal jafe-jafe ñu jël ko tëj ko ci kaso bi loolu xel da ciy xalaat ba tax na kon loolu waral la 16 bii ci place de l'obélisque incha allahu taala kolikot woote fa ngir ñu taxaw soutenir ko saat ko ñu bàyyi ko mu dellu këram leneen la nga xam ne nag mooy joteem ak ñeneen buñ paree loolu ñu seet nuñ ci jubloo ci geneen anam mais anam gii moom injustice la tooñ la jaay doole la kumba am ndey kumba amul ndey la loolu moo ci nekk loolu lañ doon ubbee ñu ngi e, ñaanal yàlla Cheikh Omar Diagne mu delluwaat ci njabootam waaw ndax dem nañ seeti njabootam fekk waajal na leen ba noppi nag ndeysaan keroog soxnaam dañoo nettali bi ñu fa demee mu ne bi ñu ko jàppee dafa ko doom yi jigéen yi ñoom ak ci doomam yi wax ceeg ñoom ne ne seen papa dañ ko téye mu ne ñu ne ko suñ papa bi muy dem wax nañu ko wax nañu ne indil na indil nañ ko convocation mm-hmm. te mun nañ ko ci téye waaye bu ñu jaaxle mm-hmm. ndax seen papa dafay gën a am temps ci kaso bi mën a bind lam doon bind waaw ah, loolu Serigne Cheikh waxoon bañ ko tëjee ci kaso bi mu ne mu ne wa sijnu laysa bi raadi inda himmatin nee na kaso nekkul luy delluloo ginnaaw boroom yitte waaye day dolli jom jàmbaar moom kaso loolu la Serigne Cheikh waxoon bañ ko tëjee ca jamonoy Senghor ca kaso ba mu def xasiida bu rëy ca biir kaso ba yaa saadatal islaami yaa najimal wara ma akramal islaama in lam tussara dafee ñu ñaanu ko mu delluwaat ci këram di wax rek ñi ko téye ñu ñu ñu ñu jëfandikoo seen xel ta bàyyi ko ah te bàyyi ko gis nga téye Cheikh Omar Diagne ngir bañ mu doon député téye Cheikh Omar Diagne ngir bañ mu waxati ci mbirum agenda LGBT yi am na ay millions yi Cheikh Omar Diagne yu ñu formé ba noppi ku ci daanu rek keneen jug bu soobee yàlla loolu moom mooy li nekk réew mi moom li ñu bëgg ci ngóor jigéen ñu criminaliser ko dana am ci nii wala mu am ca nee dana am ci ñii wala mu am ca ñee débat boobu noonu la bu ñëpp ci kaso taxul mu jeex voté loi bi rek mooy tax mu jeex xolal li may daanalee ci loolu ñu baal ma maa ngi guddal mais c'est important li may daanalee pour wane ne loi bi dañoo soxla ñu wote ko ñu bari ñuy seetaan télé bi déggoon nañ coow fan yee ñu amoon mbuur benn xale bu góor boo xam dafa dem di jënd benn euh, orange money ci benn boutique ka ko jaay orange money ba jël numéro pare di ko yónnee ay message di ko labat te góor la di labat góor gi ci tënk histoire bu gudd la dégg ngeen dakaar Buzz demoon seeti ko ba def ci vidéo bi mu demee ba mbir yi yegg ci gendarmerie mu def ci liggéey bu am solo ñu jël waa waaje yóbbu ko garde à jël ko jàllale ko talaata jële ci ginnaaw lañ ko woolu doon ko àtte mu ñëw taxaw ci kanamu juge bi avoué ne ne dëgg la moom moo doon labat ko góor ki moo ko doon bëgg a sàkku waaye mu ngi jéggalu talaata ji weesu nii la verdict bi daanu deux mois lañ ko tëj ci kaso bi ñaari weer la xewoon mbuur la ngeen doon dégg muy coowal yuusu loolu ka ko doon jéem a def yëfu ngóor jigéen ñaari weer la ko yoonu réew mi daaw daan loi boobu ñu bëgg ñoo wax ne loi bi doy na daan yañ ca teg mat na doyut matut ànd saa mu koy loi bi mu yóbbu bu fekkoon voté nañ ko kooku lu mu néew néew danañ ko yar juróomi at ci kaso bi beneen yoon dootu ko defati yàlla yàlla doole ñu sutura yàlla yàlla wërsëgal nu député yoo xam ne dañuy déglu seen population waaye xalif généraux yi ci réew mi dañuy dëggal seen kàddu ba léegi nag loi boo xam ne sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Mountakha Cheikh Mahi xalifa yëpp ñoo dajaloo ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen assemblée bi lànk bañ coow li loolu la te jeexagul nag coow li day woy di doon coow ba keroog loi bi ñu koy voté wala bu ñu ko voté wu tamit ñuy wéy di reetee rek incha allahu yàlla yàlla doole ñu sutura defal ñu jàmm ak wér ñu dalal tardekat bi mu ñëw toog su defee ñu tàmbali waxtaan wi incha allah. sëñ Fallou nga ubbil. waaw Cheikh Muxtaar mu dugg ci waxtaan wi. doyloo sa am-am. jërëjëf Oustaz Makhtar ñu ngi ànd bu baax ci ñu doon wax sànq Cheikh Omar Diagne di suñu mbokk di sunu wóllëre nu bokk pas-pas ay jataay yu bari séqu nañ ko ak moom te xam nañ li ko ñor mooy dëgg ak dëggal ak ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi nag réew mépp war a góorgóorlu ci nu ànd sànn euh, sàmmandoo jikko yi ndax bu jikko yàqoo ci réew mi rek safaan lay doon ci Sénégal kon noo ngi ne ci gannaawam di ko dooleel bu baax a baax ci xeex boobu ak tamit pas-pas bi nga xam ne tey jii moo tax mu ñu làq ko jant bi waaye na muñ nekk te xam ne dëgg mooy mujj ñu baax ñu bari jaar nañu tey jii fii ñu ko jaarale te bañ ci jógee tam ndam rek lañ ca jëlee. Mhm. kon dañuy jàpp ne ndawal senegal la ku bëgg Sénégal la ku yàgg xeexal senegal la kon kenn waru ko seetaan nañ ko bàyyi xel bu baax. Mhm. Euh, li ñuy wax nag kon